union nationale bi ëmb acteur artisanaux yi nekk ci wàllu napp bi section bu jaaro yi ñoom d'accord nañu ci taxawaay bi nga xamante ne moom la njiitu réew Bassirou Diomaye Faye daal di am ngir rekk ñu mën a auditer secteur bu napp bi waaye it ñu xoolaat licence yi nga xamante ne yooyu la ñu jox bato étranger yi. à l'heure euh, ñu di rafetlu publication bi nga xam ne ni tey ministre de la pêche bi. publier na ko liste bato yi nga xam ne ni ñoom ñooy nappe ci géej gi. léegi nag ñu ko si gën a woo di ko ci gën a appuyer di ko ci gën a dooleel di wax ne ñun topp nañ ci ñun ñu ngi si ginnaawam que ñu wéyal audit yi. ngir ñu fexe ba lépp loo xam ne ne ay étranger la moo xam ay chinois la muy ñi nga xam ne dañu la def ay bata prête-nom ak accord de paix Sénégal ak Union européenne nañu ko gën a nañu ko gën a tengal ba nga xamee ne euh, lool bu fi jógee yàlla mën naa dogal euh, géej gi mën a noyyiwaat nappkat yii lee di sàkku it ci autorité yi ngir ñu yokkaat amande yi nga xamante ne yooyu la ñu jox bateau étranger yi gannaaw bu ñu defee ay njombe. président Diomaye amaan yi ngeen di amaan bota yi xam nga dafa ndaw parce que boo demee ay Mauritanie bu ñuy seen amaan yooyu day dem ay amaanu 400 millions mais bota mënul def infraction nga koy amaan xam nga trente millions. loolu moom xam nga dafa tuuti. naka noonee ci wàllu réforme yi nga xamante ne yooyu la ñuy indi ci wàllu napp bi ñoom sàkku nañu ngir rek ñu boole leen ci waxtaan bi. su fekkee ay reforme la yoo xamante ni ñu lu ñu war a def la war nañu mën a oo pêche artisanale surtout INAPAS ñu toog weccante ay xalaat ak ñi nga xamante ni ñoo war bato ñu xool li gën ñu di ko def. parce que ku ëpp sa morom duma loolu moom vraiment war nañ ko xoolaat. depuis ba ñu publier woon liste bateau yi nga xamante ne yooyu la ñuy autorisé ngir ñu napp fii ci Sénégal waxtaan bi nag ñu ngi koy wéyal ci gouvernement bi ngir rek mun a xool naka la ñuy def ba mun a stabiliser secteur napp bi.